julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu jaajëfal seexna alxadim akbaru ridwanillahi albaaxil xadim di ñaan suñu borom nu ko di ñaanal bu baax seex muhammadul muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool te mu wér ba li mu yéenee liggéeyal lislaam ko liggéeyal njabootuk lislaam moo àggale ko fu kawe njortam ci barkeeb alquraan karim dellu santaat suñu bu baax bi mu nu may ñu teewaat ci jataay bi def ko ni nga xam ne noon lañ ko baaxoo def mu mel ni jataay bi dafa nekk ci biir weer woo xam ne weer wu màgg la muy saxru ramadaan di leen ci ndokkeel bu baax di ñaan suñu borom subhanahu wa taala li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne weeru koor ramadaan dañ koo xaaj ñetti xaaj yërmande ak njëggal ak gore ci sawara yal na suñu borom subhanahu wa taala defal ñett yooyu yëpp ci barkeb alquran karim dellu santaat mbooloo mi bu baax a baax ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo fi jàll ci kuréel 1 ba ci 2 ba ci euh, euh, Serigne Saliou Diagne mi nga xam ne moo daane léegi di ñaan suñu borom barkeelal lépp mbooleem xarafu xasida wun fi yëkkati yal na suñu nungu ko sellal ko defal na ko addiyee Serigne Touba te defal ñu yoolu addiyee ci bar Seexul Xadim mu mel ni euh, xañ na waxtu wi li euh, moo tax dañuy jox suñu Abdou Lahad Ndiaye mu war a dikk ci tomb bi nga xam ne moom la waajaloon muy lu jëm ci wàllu weer wi nga xam ne ci la nekk te la ci aju bari lool moo xam ay ngëneel la wala li nga xam ne ni la ci jullit bi wara melokaanu ci jëmmam waaye ci ay doxalinam ak lépp lu ci aju rek insha Allah xañ ne dun guddal foofu dañ koy jox rek Sëriñ Abdou Lahad mu dugg ci tom bi insha Allah tafadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wasalaatu wasalaamu ala sayidil mursalina wa taabiin wala hawla wala quwata illa billahi alaliyu alazim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min alshaytani arrajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati alshayatin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki lislaam yi fi teew yëpp di leen nuyu nuyu bu sell muy nuyu lislaam di ñaan suñu borom subhaanahu wa tabaaraka wa taala suñu jataay yi bokk ca jataay ëllëg ya gën barakati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni nag dañuy njëkkante tuuti ak waxtu wi rek jëm ci li nga xam te nii moom lañ nësaroon ci jotaay bi muy setantal ay kàddu yu néew ci weer wii ñu nekk muy weeru koor di weer woo xam te nii weer wu tedd la weer wu màgg la woo xam te nii suñu boroom ci boppam moo njëkk a wane màggu weeru koor mu mel ni weeru koor bokk na ci ponk lislaam yi nga xam ni sunu boroom moo ko tënk ci bépp jullit mu nekk ci benn ponk jullit boo xam ni nangu na ko rekk mu bokk ci ponk lislaam yi mu nangu benn bu mu ci nanguwut nag mu mel ni day génn ci islaam ji nga xam ni ci lañu suñu boom tënk kon buñ bëggee xam weeru koor mën nañoo wax ne benn la ci ponk lislaam yi suñu borom subhanahu wa taala farataal ko ci jullit yépp wax ko ci alquran yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala na min qablikum laxallakum tattaqun subhaanahu tabaaraka wa taala suñ borom mu mel ni dafa wax ak ñi gëm kon nit ki ab jullit day wam wane nangu gi muy nangu weeru koor moom bokk na ci ñi suñ borom nangu ne kat ñoo ko gëm ndax ba muy wax ne farataal naa ci yéen koor dafa wax ne yéen ñi gëm kon weeru koor yi ku ko nangu rek dafay firndeel ne yow kat bokk nga ñi suñu boom wax ne yaa ko gën yaa yaa gëm mu ne nag faataal naa ko ci yéen comme ni ma ko faataale woon ci ñi leen jiitu mu jeexalee ci aaya bi ne lan la xàllakum ndax te ngeen jëlee ci ak ragal yàlla kon dafay wane ne résultat bi nit ki war a jëlee ci weeru koor mooy ak ragal yàlla kon nit ki bu wooree ba weeru koor yu jàll war naa yëg ci ab xolam yëg ci boppam ne moom kat dolleeku na ci ak ragal yàlla suñu boom nag teral gi mu teral weeru koor mu nekk weer wi gën ci weer yi ni nga xamee ne bis yi am na bis yu ci gën tey muy bisub aljumaa noon la weeru koor nekkee sangub weer yi suñu boom boole ci yu baree bari yoo xam te ni mën nañ ne benn buñ ci jëloon rek mën naa matale sëkk suñu jataay màgg gi màgg tax na suñu borom andi ko ci alxuraan ay yooni yoon lu mat fukki yoon ak ñett suñu borom dudd na koor ci biir alxuraan juróom-ñaar yépp mu indi ko ci saar wi njëkk muy saaru baqara ci la farataale koor gi di wax ne koor kat ci la wàcce alquran sahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqaan ci la waxee ne it ne fa man sahida minkumu shahra falyasum képp koo xam te nii seede nga mooy fekke nga weer wi na ko wor wa man kaana maridan aw ala safarin fa hiddatu min ayaamin nuxar mu wax ne it ne lu dul ki nga xam te nii dafa feebar mooy dafa am ngànt wala mu nekk koo xam ne dafa nekk ci ab tukki kon suñu boroom ci alxuraan ci biir suratul baqara ci la farataale weeru koor ne bépp jullit bu ko fekkee jaadu na ci moom war na ci moom mu wor ko buñ bëggee xam nag ci weeru koor wii ñu nekk ni nga xame ne ponk lislaam yi ponk mu nekk am na lan mooy ay farataam am na la cay ay sunnaam buñ ko bëggee xam dinañuy ñëw ci jàngaleem gu tedd gi seexuna ahmadul xadim muy wax ci am mbindam di wax ne siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani niyatuna wa kaffuna an muftiraat li wajhi baaxil mutim bi tayibaat mu ne weeru koor ay farataam ci gàttal ñaar rekk la ñaar yooyu nag ba ca njëkk mooy yéene kon nit ki li mu war a jiital mooy fas yéene woor weeru koor yépp bu ñëwee ci ngir imaam Maalik nag moom dafay mel ni genn ak yéene gi rek day doy jullit bi ci weeru koor yépp kon ginnaaw bu weer yu feeñee mu fas yéenee woor weeru koor yëpp rek génn yéene googu da koy doy ci lu dul dafa am ngànt ci diggante bi bu demee nag ba yàlla dogal mu am ngànt ci diggante bi nag buy fasaat koor gi ñu mu fasaat geneen yéene mu doyaat ko sëkk sopp nañu ne bis bu xëyee yéene it baax na kon bi ci njëkk mooy yéene mooy li yonent bi sallallahu wax ne innamal ahmaalu binniyaati wa innama li kulli imrihim ma kon dafay mel ni jëf yépp sallallahu alayhi nee na dafay aju ci kaw yéene kon yéene mooy bi njëkk ñaayaar ba mu ne nga fekk sa bopp ci lépp loo xam te ni dafay waral dafay yàq koor loolu nag mën nañ ci gën a ràññee lu mel ni lekk ak naan ak jaxasoo ci bëccëgi weeru koor ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu bari la waaye buñ ci tënkee yooyu mel na dina yóbbaale yu bari mu wax ne sunna yi nag ba tey ñett rekk la moo tax mu ne mas nuunu salaasatun indal labib tahjilun al fudur min bahdil xurub wasaani taaxiri suxuuru layla saalisuha kaful lisaani xawla mu wax ne sunna yi boo ko bëggee xam na jàpp ñett la ba ci njëkk mooy ginnaaw ba sunu boroom dogalee ne koor gi mi ngi tàmbali ci bu fajar gi xare di am ci bu jant bi sowee kon nag bi njëkk ci sunna yi mu njëkk koo tudd daf ne mooy teel a dog mooy ginnaaw boo xam ne suñu borom dogal na waxtu dog jot nga dog te bañ koo yeexe kon loolu bokk na ci sunna yi dog nag dañ koy bàyyee ne ak ndogu yemut ndax dog moom benn doomu tànn ma sax mën na ko boo dogee ba pare nag door a joxe joxe waxtu julli wi door a jëm ci dog ci dogo ñu bàyyi ko xel bañ a topp yenn santu santu jàmbur yi nga xam ne daanaka bu boo nee dog rek ñu wuti dog ma rek continuer ba waxtu wi loolu lu jar a bàyyi xel kon bi ci njëkk mooy teel a dog ñaareel bi mooy yéexe xëdd mooy ñaareelu sunna si yéexe xëdd nag buñ ko waxee mooy xëdd bu ñu nee xëdd nag yéexe yéexe ko mooy nga bàyyi ba guddi gi yegg ci nga xam ne tey ci misaal boo jooxee sunnas xëdd gi ba pare di nga toog lu mat fukki minute ak juróom wala fukki minute wala nga xayma ko ci lu tolli nga jàng ci alxuraan lu mat ñeen fukki aaya loolu lépp nag dafay sellal rek di wane ne nit ki lépp lu muy def war na koo gën a bàyyi xel nga xam ne muy bañ a teg fitna boppam ci ñenn ñi nga xam te ni mën nañoo bàyyi ba xëdd mën naa mën nañ ne weesu na ñu door a di xëdd di lëndëm doog lu mel noonu loolu moo tax ñu xayma ko ci loolu waaye yam waayu xëdd ga mu fam yam moom mooy bu ñu salaatoo rek fa la yam ba yam ñetteel ba mooy fekk sa làmmiñ ci lépp bépp wax ju bon te loolu it lu jar a bàyyi xel kon koor yemut ci lekk ak naan rek boo bëggee bokk ci ñi nga xam ni seeni koor dafa nekk ci koor yi gën a kawe dangay ngay fexe ba matale boole ci sa cër yépp mu koor ni Sëriñ Tuubaa waxee ne koor lu am solo la lu am njariñ la ci nit ki ne lépp lu nit ki di sàkku ci ngërëmal yàlla ak ci xéwali yàlla yi nee na koor bokk na ci yi ci gën a gaaw yi ci gën a gaaw moo tax mu ne amma siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardaada bihi wa nihama li anna fi ljannati baabun laa yaxib fihi siwa ahli siyaami faxtasib mu wax ne kat boo koor bokk na ci li nit ki gën a gaawee sàkkoo ngërëmal yàlla ak ay xéwalam mooy koo woor mu ne ëllëg yowmal xiyaam am na ay bunt yoo xam te ni ci aljanna bunt la yoo xam te nii ku dul woy woor yi duñ jot du jotaat bi kon koor lu am solo la ak daraja joo mën di am boo bokkul ci woy woor yi rek doo bi ci bunt boobu mu wax ne summa siyaamu fantabih lam yan asir yow mi nga xam te da woor na nga xam ne koor gi ngay koor kat na nga ci yeewu ba xam ne nekkut ci ñàkk a lekk ak ñàkk naan rek ndax bariwaa na aji woor joo xam te ni woor na ba koor ga jeex jëliwu ca dara lu dul xiif kon nag loolu lu jar a bàyyi xel la mu ne laysa lahu siwal majaa nga xam ne jëliwul dara ci koor lu xiif kon loolu lu jar a bàyyi xel kon nañu xam ne koor lu suñ mbom màggal la lu suñ borom teddal la ñu xam ne sunu borom moo ko santaane muy benn ci ponk yi lislaam yi ku ko matale matal nga ci ponk lislaam yi ku ko wàññi wàññi nga ci ponk lislaam yi te ku wàññi benn ci ponk lislaam yi nanga xam ne sa diini matatul kon dafay mel ni ñu ngi signalé ne liñ ñu joxoon ci waxtu wi mat na kon xanaa dañuy gàttal rek di wax ne waxtu wi moo tëddee nii ndax jamono ji dafa xaw xat kon dañuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala képp ku fi teew suñu borom defal ñu yërmande ji nga xam moom la wax ne moo nekk ci weeru koor ak ak njëggalam ak ak ngoreelam suñu defal ñu ko ci barke weeru koor yi ñu nekk ñu ngi nuyu mbokki julli di fi teew yëpp di jox ku nekk wàcc waaya ba nga am di ñaan suñu defal ñu tawfeex wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko